ni ko suñ borom waxee rek wa anna saata aatiyatun laa rayba fiiha wa anna allaha yabaasu man fi lqubuur yàlla ne na saa luy dikk la muy dekki ak fay jëf mu wax ne faaw rek mu dekkil mboole mi nekk ci bàmmeel yi delloo leen seeni jëf kon dundu doomu aadama yëmul rek ci àdduna mu jàll nag di indi ay misaal yu am solo di ko misaal ci li nga xam ne moom mooy ruux ak yaram indi ci li nga xamne moy xel ak li nga xamne moy xol ak banex ak shaytané ak aduna yoy yep mu koy misaal ci jëmmi doomu aadama moo tax mu naan jëmmi doomu adama ci bopam rek dafa melni ab kawnu la sun borom daf ci boré yu bari mu ci joxe misal nak day wane ne maanaam doomu aadama ruuxam dafa mel ni ab buur boo xam ne dafa yilif dafa yilif ab dëkk ruux mooy buur bi nga xam ne mooy yilif waa dëkk bi wala waa réew mi mu am nag wazir koo xam ne conseil technique lay doon ci moom ku koy xelal ku dëggu te baax ci moom te bu ko toppee rek ay mbiram jub te mooy xel mu leer amit ay sordaal yu ko yàlla booleel dimbali ko ko te mooy leer yi bàyyi ko ci ay jaamu am bu jëfandikoo ngànnaay li ko sun borom jox ci tudd yàlla mu jural ko ay leer yooyu daal di taxawe ay sordaal ci moom yu koy dooleel ngir nguuram di gën waaye nag mu am soxnaam soo xam ne moom lañuy wax bakkan bakkan am beneen noon boo xam ne bànneex lañ koy wax dikk fexe ba lënkaloog bakkan ba daaneel nguurug ruux maanaam bànneex day mel ne moom itam beneen buur la bu nekk fële moom itam yor nguuram ni ruu yore nguuram mu dikk nag bëgg lënkaloo ak bakkan mi nga xam ne mooy soxna su buur bi dikk ni ko moom da koy takk moom it koy ngoro bëgg na ko daa bëgg def daal ay pexe ànd moom mu jàppale ko bu daanilee buur bi def ko moom mooy am ci àdduna sax bari ngeen bari na buur yoo xam ne dangay gis ne pexe yañ def ba daanal leen ci seeni soxna la jaar moo tax bànneex nag day dikk ngir lënkaloog bakkan daal di def ak wor gu metti ngir bëgg ànd moom ngir daaneel nguur gi ñoom nag ka ñuy dimbandikoo mooy seytaane ak li ñuy wax xusuusu nafsi mooy cëri bakkan yi muy shahawaat ak lëzzaat yi buñ ko waxee mooy shahawaat yi ak lëzzaat yi mooy yi mooy bakkan di bànneexoo hmm. yooyu yooyu leen di yooyu la dimbandikoo ni nga xamee ne ruux day dimbandikoo xel ak leeri sàbbaalam noonu la bànneex di dimbandikoo shahawaat ak lazaat yi ak seytaane ànd ak nag bakkan ngir def coup d'état ba mën a daaneel maanaam buur boobu muy ruux wàccee ko ci nguuram ñoom nag bu ñu amee ndam rek mooy nit ki yàqu na yàqu nañ ko waaye bu ruux wéyee di am ndam mooy nit ki jag na defaru na biir ak bitti tey ak ëllëg misaal yooyu lay joxe waaye mën naa nurul lu xaw a naqaree xam ci yow moo tax ma teel la ko tënkal rek ngir nga xam ko